Sénégal bokkul ak yeneen réew yi am na lu ñu fi am luy am Sénégal euh, ak fi Sénégal toll ak li nga xam ne yëpp yàlla ci musal Sénégal moo tax ma jàpp ne Sénégal bokkul ak yeneen réew yi kon su fi dara xewee dañ ko war a waxtaane yéen ñi nga xam ne yéen ciy liggéey d'abord yéen moom ay professionnel xam ngeen lan moo ci ak li fi nit ki war a yem ak li war a moytu yooyu yéen ak ñi nga xam ne ñooy décideurs politiques yi dañoo def benn benn conclave benn séminaire